dañu dajaloo fi en tant que euh, cadre euh, de Nioro natif de Nioro des gens euh, qui ont connu dans leur passé que Nioro actuellement nek ci dans d'autres régions, ñu xalat dajaloo wax ni dal dañuy wara pour xol naka lañuy participer au développement de de Nioro lool mo ñu andi fi euh biñu amé xel bobu nak dañu wo ñëpp. Nous ñu dans différents secteurs des professeurs d'université des acteurs euh, de la santé des enseignants du moyen secondaire euh, des femmes leaders euh, qui évoluent aussi dans différents secteurs de la vie ñu ñëpp ñu ce fii ku ci nekk andi sa xalaat. Nous nañ c'est un de évoluer sur le plan de la démographie la population que docteur Souleymane Ndiaye annoncé la présentation depuis 1960 les populations population 6 000 habitants actuellement en 2023 on euh, on a évolué pour atteindre 28 000 euh, habitants donc on est euh, vraiment avancé voilà une avancée significative donc l'orec pour que nous xam un potentiel déjà la ressource humaine la main d'œuvre surtout encore c'est une c'est une une ville pour amener ça regorge de, de, de, de euh, populations jeunes. Il y, a, des jeunes qui sont là et qui, ont, qui veulent que travailler. Donc, euh, il y a des jeunes qui sont là, les gens veulent travailler. Donc, les aussi, les gens veulent travailler. donc am un potentiel un ressources humaines sur le plan de l'agriculture aussi ils ont un le bassin arachidier euh, voilà donc sur le plan de l'élevage aussi en plus euh, il y a suffisamment de terres non exploitées. donc y a un potentiel Ce qui est am document bi mettre en place euh, évoluer comme tay liñu wax rek euh, poser juste les jalons di xaar aussi d'autres participants d'autres groupes de personnes d'autres cadres d'autres intellectuels dans divers domaines nous intégrer le groupe

avec euh, voilà, d'autres professeurs d'université qui ont fait le déplacement depuis Dakar, des Thiès, Saint-Louis. nous L'amour qu'ils ont pour Nyoro et l'intérêt qu'ils portent euh, pour Nyoro et aussi euh, l'amour qu'ils portent pour la réussite du ministre des Finances et du Budget. Nous savons que sommes xam les seen xam-xam màcc na ci yenn yenn ici yenn yenn secteurs yi ñoom la jëloo ñu ñëw xalaat ñu xalaat donc tënk seen xalaat ci ben document bo xam ni matagul mëtagul dañ koy ubbi ba nga xamné ne képp ku bëgg ñëw rek mën ñëw yok ci dañ jël bànqaas yu bari yi nga xamné ne secteur clé yi nga xamné ne mo mo nek ci dëkk bi manam njàng mi njàngale mi manam aussi euh, mbay mi cham gi nap gi ak yenen ak yenen yo xamné ne nii yaakaar nañ ne buñ ci défaré lo xamné ni dina servir de base pour képp ko xamné bëgg nga investir dëkk bi di ko mëna a ci mëna japp wa waaw la muñ fi réunion ñetti fan euh ñun euh ubbi nañ buntu yi ba nga xamné ne képp koo bën nga ñëw ñu ñu ngi jàpp ubbi suñu loxo nga ñëw wax dëgg yàlla xam ne ñun mëtuñu waaye euh, aussi mënuñ compter ci nga xam ne ñoo ñëw ñi xam ne ñu ngi leen invité ñu ñëw ñoom ñëpp ñu bokk liggéey bi xam ne ñooro ñoo ko bokk document bi lu ko tax jóg mooy ñu am loo xam ne rek a basé wu nañ ci mën di ci tënku maanaam pour ku bëgg a def élevage lépp nga xam ne ñooro fii lañ toll te fii lañ bëgg a jëm waxtaan nañ jafe-jafe yi opportunités yi contraintes yi li nga xam ne mooy menace li nga xam ne mooy euh, mooy faiblesse yi ak li nga xam ne ñun moom lañ xalaat ne buñ ko recommandé buñ ko defee nañ ci am euh, mucc na mucc ayib. ah ci tënk yaa naa bokk hein mooy jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci école bi euh, xale yi nga xam ne duñu duñ jàng ñi nga xam ne dañuy bàyyi euh, maanaam agriculture bi ñi nga xam ne amuñu amuñu jumtuwaay pêche bi xam ne ne mu nekk ay ay ay tànk ak aquaculture ak yeneen ak yeneen donc bëri na bëri na ci fànn yëpp li xew Sénégal moo xew ñooro ma koy rafetlu bu baax a baax a baax di si remercier initiateur yi. dañ ñu woowoon kaay lañ ñu xelaat ci domaine yu bëri seet li fiy jafe-jafe seet li nga xam ne nii mu ngi fi loo xam ne nii luñ am la ba pare seet li nga xam ne nii génnee tamit li nga xam ne nii euh, bu nu ko bu nu ko bu nu ko bu nu ko bu nu ko tegee fii ëllëg am ku nu jàppale dina permettre suñu dëkk bi mën a dox. ci commission bi wax càmm gi ci càmm gi ak mbay mi ak euh, napp gi si laa bokkoon exactement. waaw biñ ci nekk bi liñ ci def moo di ne waxtaan nañ ci jéem leen génnee lépp loo xam ne jafe-jafe la ci mbay mi problème la ñu jéem a seet naka lañ koy saafara jéem koo tënk ci benn document pour que ñu mun koo jox ñi ñu xalaat ne xëy na buñ ko liiree mën na ñoo jàppale pour que Nioro avancé tout un tout petit ci domaine boobu waaw mbay mi am na jafe-jafe yu bari lool yu bari ñun ñëpp fii ay baykat lañu ay doomu baykat lañu bi ñu juddoo matériel bi ñu fi fekkoon ba léegi moom lañ moom moom moo fi nekk moom la nos parents di utiliser suñu parent yi nekkatuñ fi ñun moom la ñuy utiliser ba léegi sa ce le kii là n'a été euh, waaw matériel boobu ba léegi changé wul amuñ yeneen yu bees wala bu fekkee am na yu bees mënuñ see jot parce que suñ loxo jotul suñu ginnaaw donc matériel bu fi ñëw bu ñu seetloo li ñu gën a seetlu mooy ñi koy ñi ciy jot mooy ñi nga xam ne nii ñi mën naa ko wax sax ay ministre lañ trente nekk nekk devenir des baykat ñooñu ñoo siy jot ñi nga xam ne réellement ñoom ñooy baykat yi doomu baykat yi di bay dëkk ci bay am activité boo xam ne uniquement mbay mi la mënuñ ko am mënuñ cee jot euh, Mamadou Moustapha Diawara directeur école Porokhane waaw participant ci activité yi waaw beaucoup